gërëm ñëpp di jiital ci gërëmam sëriñ bi ndax xam nañ ay occupation yi nga xam ne bari na waaye terewul lépp la fa teg biñ ko oowee ci bés bi moom moo ne place boo leen ko defee ak waxtu boo leen ko defee ngeen yëgal ma ma ñëw ñu ngi gërëm itam gis ngeen ne bi metti na képp koo xam ne jàppale nga ñu ci ba ñu am ci résultat bi salaaw ñu ko doon toppatoo bii ci la ñu fanaan ba bër set lépp la ñu bàyyi taxaw ci pour seen satisfaction ak seen installation pour recevoir nag lu mat quinze mille personnes xëy na dina am toujours ci organisation ba lu manqué tuuti waaye quinze mille personnes trois fakal yombu la organiser ñooñu amal na ñeen ci ngër léegi nag waxtaan wi ci ci am solo mooy ci ñu fi tax a ñëw dañuy gàttal gërëmaate yi te jox ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ñu sànn ci tuuti kàddu bala ñuy commencé après jébbal micro bi sëriñ bi pour déglu ko sur la liberté de choisir Bassirou الله الرحمن الرحيم wax dëgg yàlla am naa jaaxle tey métti ndax ñeme na wax la waaye nag den nag Cheikh Ahmed Tidiane Maktoum kon nag doy na ñaanal boo xam ne bii ak njàmbaaram dépassé na frontière Sénégal waaye wër na adduna dem na ba Makka mu may wax ci kanam koo xam ci keroog ba sang ba ne la Sidi Aboubacar si xalifa ba Makka ba jaboot yëpp jàppale mag ak ndaw góor ak jigéen taalibe mu xasan ko moo defal ñëpp may wax ci man nii de mën na maa bind lii ba ci moom ndax ba ma amee fukki at ak ñaar laa nekk ci këram ba léegi ñu génn mu war xam naa waa jiitoo li ma xam ci moom nag guddul gàtt lu mu xas bañ ñeme ba tax ko ca moo ne ca kanam su lànk it mooy na ca kanam lànk rek kon nag su ma amee nattu tey nag muy sama sang di suma kilifa di sang ñëpp kuy kilifa yi ñëpp wax dëgg yàlla da yow làng boo ne làng boo ne su ñoo la gëmee yàlla war na ñoo ñëme ko seen xel li ma xam ci yow nag doo dugg dara te amoo ca ndam loo dugg rek laa def ca ndam la ko des nag mooy xam-xam bi la yàlla jox fa ku la sopp nangu na li ma wax ku yàlla nattu ba sopp la it nangu na li ma wax kon nag li mu woote tey yow soo woote woon tey kuli ko mu fekk la soo toogoon nag woon suñu amulee paas daanu tànk fekk la kon nag lii doon woo dafa yomb lool yow loolu ñu ne te suñu jàppee ci yow la ñu ñëw suñu amee problème ci yow la ñu ñëw yaay fa téeméeri million ci jant balaa ngoon mu nekk nit lépp ji jox ko say bopp jox ko yi jox yow de sab taalibe war naa yomb na jox ko dëgg yàlla sëriñ boo xam-xam ba rafet na te dala koy jóor ba boo yëgoo jëriñoo xam-xam su la def dalee mu yëkkati alal bi mu jeex yónnee ko ci ko dam bu wëlarantee mu yónnee ko délégation ñaanal ko yëkkati mu ñoo jox léeg-léeg mu woo doomu aadama mu ñëw mu yëkkati 3 millions ñii 4 millions ñii 5 millions ñii 10 millions ñii 20 millions te li ma wax de ñi fii toog ñu ci bëri su fekkoon tamit kenn koo xam ne kii su fekkoon tamit kenn koo xam ne kii teral ngay sëriñ bi toog mas naa sotti ko ci yow ñu màgg sa tudde xam naa ne fii ñu bari daal yéen waaye nag si ñu nga sant yàlla soo mere woon ne yëpp daan daan daan daan wéer ndax sang ba sa baay si xalifa ba kenn la moo la yar génnoo ci këram ba na gën xam-xam sa yar sa laabi sa bëgg njaboot lii xéewal ci ñun xéewal Sénégal yi xéewalu àdduna kon nag li ci def ma toppee sama yéene ci moom ak li ma bëgg a wax ci moom dinaa ko commencé tey quatre heures la leen fekk te xam naa yëpp moom ngeen bëgg a dégg moom a gis kanam fa tabarakallah yàlla ngi ñu indil ko suñu kanam mu des rek nag yaa ngi woo ci Abdou Diouf yaa ngi jox ndigal ci Abdou Diouf lii nga seq ak ñun nag te mu soxla sant dara yow da nga woon laaj leen xaalis yéen la woon yéen la woon yéen la woon ay xeer la ci lu dul kaay leen vérifié ko ba mu doy nga sàmbal ko ba xam ne fii jamono bu toll keneen koo tëj ci loxoom ku dul ab duuf mu yàq ko yàqaale nga ñëw taxaw ngir lool lu ñu def lu fekk la kenn defuñu nga defuñu ko. jërëjëf. sëriñ bi. maa ngi lay nuyu di la nuyu bu Ndakaar yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp war nañu teew déglu la ni ñu ko daan defe dem loolu ma sa wax loolu ma sa wax jëm ci réew mi njëriñ la pour ñun njëriñ la pour réew mi njëriñ la pour l'islam oote pour waa Sénégal yëpp ràññee bu tànn jotee ñu tànn ki nga xam ne mooy njariñu Sénégal muy Abdou Diouf ñun ñi ko nekkal fii nag nekkoon fii ab Diouf fii si région bi boo nekk loolu tamit dañu si sawar dañu si ànd ak yow parce que dañuy dimbali si liggéey bi nga xamee ne moom la ñu doxal fii ci région bi di ko doxal si réew yi wax ji duma si yàgg te yaa ko moom yaa tax ñu ñëw fii dañu la bëgg a déglu li ñu jógee nag ñeme nañu ko puisque dañu ñeme li nga xamee ne moom nga ñu daan digal xam nañu ne lépp loo xamee ne moom nga xalaat mu jëm si l'islam bi jëm si réew mi ñari na pour ñun li may si dolli rek mooy du politique moo ñu boole mën naa wax ne sax du lislaam bi rek moo ñu boole deret ji moo mu boole maag yow boo nekk foo taxaw war naa taxaw sa wet nekk fi soldat boo nekk sëriñ bi du fi si yàgg ma dellu la kàddu nga wax lu dëgg koy vanté ni ko fii mooy Abdul Aziz mu ni ko man lam yaarif shams mu ne ko ana ku xamul jant kon itam duñ la duñ ko présenté ndax defe naa ni yéen ñu koy présenté yéen ñu ko gën a xam waaye li wax moo di fii ñaar ñoo fi daje taalibe ak militant ñun nag ay taalibe lañu du ñu militant wax ci turu taalibe yi li ñuy wax it moo di rek la mét daal jub na ko indi li ma allahu fan am na wax ñu ko defal li la sa borom digal du la la wax mu ni ko du la la wax la banu Israaïla waxu Muusaa ko demal yàq sa borom ngeen rayante ñun ñu di toog fii di leen waaye dañu lay wax ni demal yàq sa borom ngeen rayante ñun ci seen côté di rayante waaye ñun tam wax ni demal yàq ak Diouf ñu ngi fii di leen nekk ñu ngeen ci góobe dara déedéet day la naan demal yàq ab Diouf ñu ngi ci sa gannaaw ci sa kanam ñu ngeen bëgg na ndax itam Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu daf daan wax ni ñaar du daje ci xol nee na ngëm gu mat sëkk ak gu mat xeetu daje ci benn xol il faut benn toog fa ba ca def dem bu gëm mate di nga du am bu di nga ñëwee ngëm amatul moo tax nun du nu werante taalibe def leen def bàyyi leen ñu bay te itam ñun amuñu opinion foi la ñu am opinion moom la borom di nattale bu gisee lu ko jaral mu wéy bu gisul lu ko jaral mu dellu gannaaw waaye foi nag borom bu gis lu toll moo tax bu ko jëndee dara ñu di wax ne ce choix mooy suñu choix parce que bu nu meloon na yow kon du ñu la dénk suñu bopp kon ci nga ñëw ni ko dénk naa la sama bopp war nga xam ne nag yamatu leen ba tax na boo ñu xalaatalee dañuy nangu xalaat ko du ñu seet ndax lii wala laa boo nee noonu la rek ñu ne noonu te itam du ñu def gannaaw de ndax mosunoo def gannaaw kon ce choix mu di président Abdou Diouf def nañ ko muy suñu choix ndax itam damay wax ni ki la jik juróom-ñetti yoon ne danaa la may deux mille francs boo liggéey la su mu ñëw jox la ko dafa gën a ëllëg dinaa dellu si te danaa la ko jox na ëllëg sa mu dellu si jox la ko dinaa dellu si bu ëllëgee te la sa mu dellu si jox la ko ne la bu ëllëgee dinaa la sa mu jaaraat jox la di ko def ba mu mat juróom-ñetti yoon mu diggaat la gëmoo ko doo seq la ca wax gis nga ko ba nu ba nu la ba léegi loolu ma sa wax rek moo xam ci diine la moo xam ci politique la kon loolu boo ñëwee tey jël sa choix ne Abdou Diouf la danañ ko yell mu ngi ci bëgg ñu defal la ba nga am ca daa ko ca su ko defee nag mu mel am na ci yoo xam ne ndeysaan nit ñi xam ne duñu ba tey naan sëriñ politique gis nga yàlla am na téeméeri junne yeneen ak ñaar fukk ak ñeent mais trois cent treize la ci responsabilisé ñu leen wax leen nag nit ñi ñi ci def mun leen toog leen ci seen biir yi ay dof ngeen xamu leen lu ngeen di wax nit ñi te ay yeneen ci lañu leen toog leen ci seen biir yi leen ci kenn jàpp leen seen jàmbur rek tànn sa rek 313 ñu leen nag yéen dem leen wax ak nit ñi bii 313 yooyu ñu tudd ci juróom rek tudd leen ulul azmi ñu ñooy borom pas-pas ya borom dogu ya nga bu ab yonent doon doon su moom ci ulul lay borom su ko defee kon kooku nga xam ne nag dañ ko nu toogal ci suddir ne mais du yem ak ci ñu wax ak xam nga dafa am na xam ne bu jamono lëjee rek bu ñu génn kenn du xam fooy teg waaye bu ñu waxee rek ni ñu xam bu ñu teg seen tànk su ko defee kooku nag amul droit toog waaw ci koo xam ni yow bu ñu la waxee nga ni sëriñ deret kurus man deret kurus bokkul ci diine bokkul ci deret kurus bokkul ci diine bi mu demee ba ñu nekk islam bi ba jullit amatul lu mu def la deret kurus dugg si ñu ni ko doo ko def bopp distraction di se passer ce temps waaw ah, loolu la dërëb kurus di leen waaye dërëb kurus bokkul ci diine ñu wax leen ko tey wara na koo xam ne amoo responsabilité amoo ko xam ne boo amee mbubb am loo lekk am attaaye naan am lan boo tëdd jeex loolee sa soxla ci dund kooku ñëw nañ la wutal war rek waaye nga am ko keneen nag moom jël responsabilité am ba mu mat rek su ko defee loolu moo waral tey jotaay bii di jotaay boo xam ne jotaayu farata la du caaxaan gis nga du caaxaan parce que gis nga avenir yu réew mi ci li la tal te gis nga réew bu baaxul diine du baax tariqa du baax bu jàmm amul dara du dox suñu Abdoulaye Mbacke def na ni bu jàmm amul doom lu nit doon def doon na ko teg ci suuf ba jàmm am mun ma kon nag fa jàmm ja nekk ko ñëpp wuti waaw mun ma tey kat xaw ma ma xanaa njëriñu daj ñëpp la amoon nag ah man koy njëriñu daj ñëpp gëm yàlla ko ma waaye yaru na ca am na xel mu ñu mën a waxee ak moom mun ma ti buur du na boppam yàlla koy tànn mun ma su ko xasee tànn rek nga fekk ca yar ak xel mu ñu mën a waxee ak moom doy su ma tey na kon nag mu di jataay bu ama am solo ndax lii suñu destin suñu réew ci lii la aju ndax li kat dama am sama benn wëllëre boo xam ne waxtaan kat la mu di ma wax lu am solo damay wax ne am na ñoo xam ne ci réew mi bu ñu bëggee tukki nit ñëpp war nañu cotiser jox leen ñu toog rek bañu bañu génn réew ndax bu ñu génnee la ñuy yàq waaw cotiser jox leen ñu toog rek moo ci gën mu ne nag am na ñoo xam ne bu ñu bëggee tukki bu ñu amul paas ñëpp war nañu cotiser jox leen ñu tukki waaw ndax la ñuy indi si ñenn ak la ñuy feeñal ci ñoom rek ko mën am na ñoo xam ne boo leen joxee réew mu yàq ba am ñoo xam ne boo leen ko joxee mu defar su ko defee kon nag mu di jotaay bu am solo ngeen war ko déglu ak tey déglu ko ak xel du jotaayu politique politicien la jotaayu farata la njëriñ war ci génn ngeen takk ko boo xam ne da ngeen ko mën di yóbbalu ci lii ñëw ci seen dund boobu ëllëgee nit du leen mën a teel loolu la jotaay bi wund moo tax ñu ñëw fi waaye bu doon politique rek ñu ñëw waaye moo am na responsabilité xam na ko masula day di ko day di ko jël depuis cinquante ans ba soixante-deux réew mi moom taxawaay bu ne ak la mu ca def ak la mu ca wax la mu ca dund bërki dem rek lay génn kaset yi ak coupure yu journée yi di seet la ko dale ca cinquante deux ci condition humaine premier article am ba mu jëkk bind di ko topp ba loola passé ba réew mu am indépendance ñu di ko topp ba ca PSS damu formé woon la mu ca def ak fañ jaar waaw fañ ca jaar te mu xam wolof ndax xamoon nañ dana tàng mu ni ku ne parce que fit may naa la nga yem ko waaw man mi sama fit amul ma yem nag mu continuer la ñu di ca dem ba ci fédération du Mali moo jëkkalaan moo jëkkalaan ba bi réew mi ne dañuy def seen référendum suñu premier référendum mu ni moo bañ parce que indépendance précoce la préparé ñu ni ko ña naroon wuti non yëpp ba ko daw dellu wuti yi parce que xam nañu boobu jàppuñu mais amul benn taxawaay bu ma sa am ci Sénégal te moom jógul taxaw jël responsabilité am def ca lam ca war a def ba ci kër Lamine lay jël keroog moom doomu génn réew mi di tàkk assemblée bi ñu tëj ko dàq député mara bu mu ne da ngaa dawoon sa dem sa yoon wuti bala la wéy keroog moom rek génn dox ci digg tali bi ak alxuraan waaw dox ba ñëw kër Lamine Gueye taxaw xool député yi Lamine xool leen ni leen lépp baax na yàlla njëkk yi keroog la leen wax ne xamoon keroog ko wax ne ko xamoon naan fii doomu Babacar Sy rek a nekk mu ànd ko ñoom ba affaire ba defal kon at mu ne circonstance bu nekk événement bu nekk jël na ca responsabilité am bu nëbbu ko boobu mujj bii ba mu koy jël moom rek ka yéen a taxaw ni maa ngi si tunnee ak naa bu amee yu ko bëggoon it ñemewuñu ko su ko defee kon nag loolu suñu ci demee ba yegg si fii tey moo taxaw ca stade Léopold Sédar ñun ñëpp toog mu ni mag ñi daaw lañu moo wax ni Abdou Diouf la ñuy fal waaw kon bu ñoom yóbboo muy dox ba tey muy dox ba tey yàlla dogal ñu war caa dellu mu joxe ci xalaatam kon nag ñu déglu ko li mu nuy sotti ñu taataan ko buñ ko taataanee ñu jëriñoo ko te bañ ko def déglu wolof ndax wolof day déglu ba noppi waaw du tey tey nag ñu déggul la ñu wax te dëkk moo ko déggatoo waaw ah, nga defee kon loolu la bëgg rek ngeen toog bu tey déglu mu sànni li mu leen di sànni mi ngi naaj te wax na ma léegi ni man ngelaw li dafa bari xanaa ñu waxtaan ko rek te bañ ci waaye bu fi yenn woon jëm ëllëg bi nun ko yëg ko yëg ba defee kon nag tabarakallah ñu ngi koy jébbal kaddu gi mu waxtaan ak yéen ci li waral bi délégation yi fi ñëw yëpp yëpp na leen tabarakallah limaan yaa ne leen diggante barñe te ngéej feneen sa papa bu baax ba ci Thiès jóge alaaj moom jigéen yónnee na fi benn délégation bu jóge Thiès ñëw teew excellence daal kilifa yëpp daal ñëw nañu ndax boo yéegee da ngay jiw balaa koo fàtte waaye ñëpp daal ñëw nañu wasalaam ngeen bàyyi. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa والسلام على من بعث ليتمم مكارم الاخلاق سيدنا ومولانا محمد وعلى اله directeur mu Seydi Cheikh Ahmad te dañu ni ku ñaawul war ngaa ñeme mujjee bu tëral ci yàlla dàqoon sax dinañ avenir réew mi ñun xale yi ñoo ko moom. avenir réew ñun xale yi ñoo ko te lu ci waay di def pour defar xam nañu ko. lu ci waay di defar pour yàq xam nañu ko. ndax dañu ni nit bu la bàyyam rawee. waaye boobu moo tax ma mooy lu ko tax lu bàyyam xam nañu ko ko wax. ko jàppale avant les élections danañ ko jàppale ci liggéey après les élections waaw jàppale liggéey la yoon nan ko waxee woon ne loolu jàppale bi yaa fi nekk waaw danañ ko jàppale avant les élections danañ ko jàppale après les élections bu ñu ko booleeg umb umb bu ko jàpp dañu koy booleeg yar ak tekki ak bu mat sëkk ak xam ni ku muy xam réew mi ñun ñoo dafa gën a moom bii lay waxee bii lañ koy jox pour mu wax waaw. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dafa mel ni Serigne Cheikh dafa am bés mu waxan baat boo xam ne tey jii la jot. Serigne Cheikh dafa taxaw Touba kër maamam Cheikh Ahmadou Bamba. ni tey di reena ba képp ñëpp di ko dégg sëriñ seex ma ni sa ree keroog tey la jot yëkkati nga sa kàddu sa bàyyi yëkkati kaddu ñu bokk kaddu yi jox la ko ngir nga taxawal président de la république Abdou Diouf kon sa ree keroog tey la te sa wax lu mat a siiwar lu mat a xalaat la da nga wax ci xam-xam di wax ci deret di wax ci leer sëriñ bi man de sama digg yow lu may waxati amatu ci ku ne xam na ni nga demee man ku ne xam na ni ma demee yow sama mag nga ni di Abdul Aziz bu ma duggee këram doonatu fa dara ba ba ma koy génn samay dooma ngi nii di Moustapha ak Mansour buñ duggee sama kër doonuma fa dara te ñooñu rekk li séq ak ñi la yaakaar yow ku la yaakaar ku ne bu may gis day lox mel ni yow la jàkkaar lool te dara warul ko lu may da ngaa ci wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil nga dellu atti ci jikko jigéen ci jikkoy kilifa kilifa day jéggale tey jëllale yow toppi woo te doo topp kenn dara da nga bëgg nag lu jafe koo toogal di sangam rasulullahi ko moom waaye nag nit la ni yow rek ñaari nit rek ko jur lu waral loolu yow foog nga ni koo toogal ak koo dajeel yaa ko war a teral te loom am nga bokkoog moom loolu nag ci yàlla rek la xaj sa bëgg-bëgg ci suñu borom ak nit ñi yàlla la ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu allo asalaamu aleykum mbokk yi yi fi daje yépp tabaarkalla yal yàlla defal nu jàmm defal leen jàmm jàmm ju bare fa tabaarakallahu kàddu yi fi jib doy na sëkk ndax itam jàmm baatu jàmm rekk ci gën mel ni yàlla defal nanu ko yàlla na yàgg fa tabarakallahu ngeen baal nu ngelaw baal nu naaj baal nu jataay bu yàgg wante Cheikh Alhaj Mali radiallahu taala anhu dafa am guddi gu metti ci taw ak dënnu ak ngelaw Serigne Alioune Guèye nee na keroog moom rekk a dem jàkka kenn topp ko léegi ba mu dellusee fekk nun ñëpp a ngi suuru mu ne ah, xam naa ko bali taw di dàq bu dee bali dëgg-dëgg du wax waaye rek tabarkal la daje yiw la daje pas-pas la daje bokk la daani ki luñ ci séentu ci ak bokk ak pas-pas ak yiw paase na ko tabarkal la mel na am na kilifa yu fi daje di ay bokk ni ki sunu ministre bile ñuy wax Marie Sarr Mbodj di kilifa ci gouvernement bi di wëllëre ci président te itam di soxna ak itam Sëriñ Lamine Diop di ministre ci gouvernement bi moom itam di wëllëre ci président te it di taalibe na nun tabarkalla ak sunu meeru bopp bi Mamadou Diop li mu wax ni am na yu jiitu lu wér la papaam keroog bi mu yeeslu ci man mooy ñetteelu fanu Cheikh al ci bàmmeel te it taxul ma toog ci waawan dama doon dox soxla ca bëccëg ba jëm këram ma ñëw ba ci kër gu ñoo wax compagnie ca Gambetta ma fekk fa voiture bu rafet lool maa ngi jóge ca dëj ba may tooñ borom kër ga ni ko waaw kii këñ la fi ñëw mu ni ma bu bees la mosu fi ñëw de ma ni ko jox ma ko mu yëkkati ko jox ma ma ni ko ndax bi ma indi dafa paan ak man ci àll bi te ki ma doxal soxla nag kenn du dugg ci luy paan ndax moom ñu jëm nag kër papa yi du dóob mii ngir waxtaan ak moom ci mbiri sëriñ kër Si ma dem jëli Alaaji Al Yàgg Jaañ nuy wut kër ga mu réer nu ba benn xale ni waaw fu ngeen di jëm ñu wax ko ko mu ne xam naa kër ga ma ne ko dugal ci kanam oto bi mu dugg nu dem ba ca kër ga góor ga ni ma man de dama jaaxle wax dëgg yàlla dama jaaxle ma ne ko lu tax mu ni ma biig dama tëdd ba guddi ñu ni ma Sëriñ kër Si moo laa seet waaw nee na ma génn fekk ko mi ngi war fasu naaru góor bu weex tal ba ni ko am mbaa ci yoon wi mu ni ma dama réer di waaw ba xale bale moo ma indi mu ni ma kon nag agsil ci biir maa ngi ci biir mu ni ma dama takk nag ka lajji cosaan mu ne moom laa feese del may ma nga taxaw ci ëtt bi ma summi ko yépp teg ko ci suuf tàllal la loxo nga ñaanal ma dem ma soog koy solaat waaw pour wax la ni ñëpp njaboot lañu tabarkal la li nu xam mënuñu ko wax nu ngi nuyu sunu jigéenu bopp bi di xaaj aram jéen noog moom démb noog moom tey noog moom ëllëg ak jàmm sëriñ ndakaaru nag xaaj Bachir li mu wax wax na dëgg maa ko yar piir waaw ni ma yare xaaj Abdul Aziz bii toog laa te it bokk na ci sant yàlla yar nit te ñàkkul fayda waaw wàllu yar nag dama ci am ku déglu ma yar la piir nga yaru piir waaw bërki démb damay waxtaan ak Mansour mi ak Moustapha mi woo ko moom mii ni ko seede ko seede ko wax leen ni leen bu ñu ma weddi mukk bu ñu ma weddee alku ci biir alku ci biti lu ma wax rekk nañ ko def mu di ko déglu ba ma noppi mu ni leen man di mu ni leen li ma jaaxal ci seen baay bii toog mooy lu nu fi nit wax daaw ren xam na ko te fekkewu ko lu nu fi nit wax daaw ak ren xam na ko te fekkewu ko waaw kon nag wattu rek la xam waaw lu mu wax rek lépp def fa tabaar lu ci ki lu kon ndam daanu ko di liggéeyee waaw ndax ndam nag daani ki soxlawuñu ko li nu ci mën a muñ la ci mën a muñ yàlla bu ko njaboot gis ndax kon dana metti lool waaw la nu ca mën ko njaboot gis ndax kon dana metti lool mën na nu muñ lépp lépp waaw waaw ba tax na soo amee ku la ko jaral da ngay mën a muñ lépp waaw ku la ko jaral laa wax boo ko amee nga mën a muñ lépp tabarkal la loolu mooy li ci nekk waaye ñoom ñaar ñii ñooy sama rakki bopp ma yaral leen sama bopp ñu wax fi kàddu yu am solo yii fa tabaarakallaahu ah mu mel ne itam sëriñ maxtaar miin nanu ko ndeysaan muy sunu rakk bu tuuti toll ni Pape ñoom ñaar ñuy sol beere beere waaw tabarkalla tabarkalla ma nekk ci seen kanam yàlla di dogal muy rafet bu bëccëgu tey yàlla dogal itam ni sunu ruux ak sunu yaram miine tuuba noon la miine tiwaawa ndax ñaari maam ya fa tëdd yépp nu na de loolu la ci yàlla dogal boo demee ci bibliothèque bi ma am boor bii téere ya ca nekk yépp boroom Tuuba ko taalif boor bii téere ya fa nekk yépp Haj Malick ko taalif waaw loolu la yàlla dogal de mu mel ni kon nag am na xat-xat am na xat-xat yu mënul nekk waaw am na xat-xat yu mënul nekk kon nag mel na ni li Sëriñ du wax ci jataay bi lu mat a bàyyi xel la jataay yu yiw la bu nu xoolante woon demit mu yiw nu ngi nuyu itam sunu mbokkum mbopp mi El Hadji Njaay dem ku bari yitte la ku bari yéene la ku bari teranga la yal yàlla xaw ko tegal teranga ngi nuyu itam sunu mbokkum bopp mi Muhammad Baruut ngeen di ko wooye bàyyi defal yàlla waaw <laughs> bokk nañu lu bare bare wallaay mook xaaja Abdul Aziz bii toog benn lañu ci man magam ànd nañu def lu ne magam ànd nañu def lu ne ba ànd nañu nu jàpp nu jàpp waaw euh, fu ne dem nañ fa ci réew yi arab yéeg réew yi afrique yéeg tabarkal la ci wàllu ak bokk ak wàllu déggoo ak wàllu xam lu nu war a def ñu ngi ànd ak sunu mbokk Shukayr nëga ni daaw la waxtaan ak man waxtaan wu rëy bu ko jamono mayee lanu waxtaane yépp daanu ko tëral def ko ci kàttanu yàlla ak sunu mbokk bu baax bi muy umayis la ak mbokk yu baax yi nu àndal ngi leen di nuyu te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp di ko ñaanal ñi fi toog ñépp yal na nu yàlla defal tabarkal la ak sunu mbokkum bopp ak di sunu doomu ndey muy Alioune Badara Mbengue bàyyi na soxlaam yépp ñëw toog mu ngi toog ci sunu biir tabarkal la yàlla nu boole at mu yàgg nu bokk liggéey bokk ak bokk bokk xarit xarit piir waaw di bind di publier di def lu ne ba bëccëgu tey bàyyi wunu ko tabarkal la waaw mu mel na wala mu mel na itam ci wàll danoo am ay bokk yàlla dogal nu bokk mouvement bi te itam mënuma doxal ci turu kilifa te la ca kilifa ga bëgg rekk laa ca def ndax moo jub lu ngi bokk nag mii ma président Abdou wax ni ma Ali Sow mii mooy sama conseiller ci domaine yu bare jox naa la ko ndeysaan moo ànd ci rek sama rakk di sama goro muy lamin njaay tabarkal la ak Abdoulaye Diop benn nu bokk bàyyi fële ca Tëngéej Youssou Margane Diop moo ma fekkoon ca Almadi ni ma fii nga nekk ma ni ko waaw mu ni ma fii de ñu bari buñ fi ñëw ci waxi mag ma ni ko sàmm waaw ñu bari bu ñu fi ñëw ci waxi mag ma ni ko dinaa ko sàmm keroog